président de la république jox na maire bi oto maa ko jox secrétaire général ngir lan ngir dafa war di liggéeyal maire bi gis ma ñu yor oto bu mel nii beneen jox ko bu mel nee bis mu ne ñu ne Macky Sall ma ko may non yooyu yëpp maa koy dégg benn bi seen xaalis loolu moo ko may yéen des dama leen luwe benn bi dama am benn xarit buy jaay oto dégg nga ma ma essayé la ko waaw ndax dégg naa ci émission rajo bi sax dañuy laaj maire oto bi maire amul oto amul kër c'est un choix que j'ai fait dara obligé wu ma ci man maa choisir c'est ma vie personnelle c'est ma façon de voir les choses damay xeex pour seen yéen waa Sénégal ak yéen waa damay xeex man pour seen liberté dama am sama bos nag sama bos mooy am ngëm am ko xam ne am na droit am na droit naan mais day wéeru ci ngëmam benn jamono mu décidé woor maanaam privé boppam ñépp xam ne nit am na droit nelaw am na ñoo xam ne dañuy toog 4 heures du matin di toog ci der di nelaw ndax lu ñu gëm man maa choisir par rapport sama ngëmu bopp ak li yàlla def ci man ne bugguma suuf bugguma leneen lu ma moom loolu sama choix la et je veux que ci biir loolu nag wax naa leen ko fii te loolu amul ku ko mën a dindi dama leen man maa njëkk jóg dem of naa ndax dégg naa ay ñu ciy werante waaw of naa ñu ngi fi waaw of naa ñu ngi fi kenn du leen waxal ci rajo loolu dëgg ba ma demee fekk fa ki ko jiite woon di Nafi Ngom Keïta moom ak beneen collaborateur bu ñuy wax monsieur Ndiaye man leen damaa ñëw ngir mbirum déclaration de patrimoine dama ah dégg ñëw spontané bi day bett nañu waaye pare bu ñu bi war a accueillir les déclarations de patrimoine waaye su yeggee ak jàmm danañu ñëw ba Thiès def fa sax conférence de presse rafetlu ñëw bi nga ñëw ba pare jël sa déclaration man leen jarul ngeen di ñëw parce que damaa am patrimoine bu may déclarer te tant maa ngi nekk ci yëfu yu ñu ma dégg du ma ko xam ndax yére yi may jënd di ko sol sax samay jaama ko moom muy samay doomi baay dama leen koo soxla di leen ko essayer mais ñoo ko xam nañ alors kon ci biir loolu dama bëgg mu leer ne loolu ma leen di wax joxe leen ko su ngeen ko joxee ci yéen lay delloo ah temps yi nag dégg naa euh, péto bi ca Tiwaawan gis naa journaux yi bindal ma fi woné ben photo ma taxaw ak président Macky Sall ñu bind peto peto xam nga lay nëbb peto bu ni fànn la ngir la ngir serigne Abdul Aziz ci al amin ci turu serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci al maktoum di lu bari ci man man taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yaa ngi c'est c'est une relation que j'assume C'est le même type de relation que j'ai avec suñu mbokk chrétien mais ñëpp xam ne nit man mooy man damay dox dem Touba xam nga kon nit ñi dañuy dugg ci lu ñu war a dugg génn ci lu ñu war je suis le maire de Thiès qui est la capitale de la région de Thiès Tivaouane bokk bu président de la République di ñëw ak Amine xam ne su ma ko yëgee damay dem teerul ko gan mais ñun ñi fi bëgg a nekk président de la république ëllëg ku ci nekk président la boo dem fenn bu bokkul a teer mais da yi ngay dañoo bokk ak yow parti mais bëgg nga ñu teeru boo bañee nag ñu fay la lu la dul neex bu leble luy naqari nit ñi ba ma demee di ko teeru mais forcément di ngeen taxaw di ngeen wax ci kanamu ñëpp lii nga xamante ni mooy yéem nii ci affaire bi moom ci boppam tooñ na ma ci yow dégg naa amoo kër amoo oto ne ko bugg mu ne dinaa fexe ba nga am oto pour liggéey. ndax ñoom am nañu renseignement xam nañu ne lii ma joxe du ma ko joxe kon Baye Souleymane yow ñi nga àndal ñëpp dama leen di wax rek ni euh, ñun seen Baye Fall nit boo ko xamul ee nga koy euh, dañu tàmm politique politicienne dañu tàmm parparloo dañu tàmm xaxarante dañu tàmm xiiroo ngaayoo ba ku jóg rek yëkkati ñu defe ne da ngay diir mbagg diw da nga bëgg daaneel diw da nga bëgg xeex diw da nga bëgg def nàngam maanaam jotul noonu la ñu amul c'est-à-dire que benn noonu la war a am mooy xiif benn noonu la war a am mooy mar mooy rafle mooy feebar mooy bëgg a jàng te mënoo ko mooy bëgg a te mënoo mooy bëgg sécurité te amuloo kiiraay loolu mooy noonu mais kenn warul noonu ak kenn képp ku bokk Thiès képp ku bokk Sénégal képp ku bokk Afrique képp ku doomu aadama ndax wala ànd kanam naa ba ne aadama bu ma sañoon daf la sama xol bu ma sañoon kon nañu concentré ci li nga xam ne moom lañu bokk mooy Thiès Thiès mérité na ñu taxaw ci ngir lan suñu taxawul ci Thiès dinañu am lu ñu bett ngir lan ngir aéroport Thiès ñëw na muy Blaise Diagne parce que cees aéroport Thiès la ngir autoroute yi yi koy wër opportunité yi nar a ñëw gan yi nar a ñëw ñun dañ ko war a waajal suñ ko waajalul anarchie mooy am fii pour waajal loolu nag

le conseil consultatif bi may wax nañ ko taxawal c'est parce que dama xam ne su ñuy xalaat rek doyul moo tax ma ne nañ ko taxawal pour waajal loolu les services déconcentrés de l'État ont une responsabilité par rapport à ça le président de la République a une responsabilité par rapport à ça il doit terminer les chantiers de Thiès ñu doxal promouvoir bi nañ ko war a def te mu yaatu ni mu war a yaatoo leneen lu ñu mën a ci biir Thiès pour def ko pour waajal loolu ñëpp ko war ma suñu kilifa diine yu sell yi nekk ci biir Sénégal ñoom ñépp ñaanal ñu ngir ku bëgg a dem ci ñoom da jaar ci ñun kon fii dafa war a jàpp foo ci bëgg dem di nga jaar région de Thiès ku fa jógee di nga jaar région de Thiès ku jógee fenn ci bitim réew fu mu mënti doon di jaar Thiès bu aéroport bi ubbeegul di nga da wàcc fa li mel di nga fi jaar su aéroport bi ubbee fii ngay wàcc kon que je veux faire de Dakar la banlieue de Thiès du utopie. lu war a mën a lu mën a nekk la c'est ensemble que la ñuy fexe ba mu nekk incha allah.